ki ñu àndal ci wàllum xarale gi mooy suñu technicien bi di Mouhamed Bachir Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla boor bi tabaraka wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi ñu bokk ñaan yàlla buur bi subhaanahu wa taala moom mi ñu wax ci alqur'aan ni ñu baada audu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmaani arrahim wa in tauddu nicmatallahi laata tafsuha su ko defee mu doon loo xamante ne buur yàlla tabaraka wa ñu bu ngeen fi nekkee di géem lim di géem a xayma la leen defal du ngeen ko musa peeg du ngeen ko musa matal xanaa du li fi nekk rek mooy doomu aadama wi mooy ki nekkee di weddi yàlla moo tax mu ne ñu wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha inna l insaana la zalumun kaffar bu dee dangeen nekk fi naan da ngeen di lim la leen yàlla wërsëgal ci xeetu xéewal du ngeen ko musa dajal du ngeen ko musa peeg dooleen ko sax mën a lim waaw li fi nekk kañ moy doomu aadama daal mooy ki nekk di tooñ boppam moo nekk fi di tooñ la nga xamante ne mooy la ko buur yàlla subhaanahu wa taala ci xeetu xiiwal ya mu war a nekkee waaye mu doon ko dëkki di weddi xiiwal ya ko yàlla xiiwalal waaye mu doon koo xamante ne mooy mbindaafoon woo xamante ne toujours daa nekk di tooñ boppam su ko defee ba tax mu yónni ñu bi nga xamante ni moom la jox téere alquran ba nga xamante ni bur yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo ñu ko yenkeewal mu may jox ñu audience faveur mo jox ñu ndigal ngir ñu war a mën a xuusandi ci biir alquran woowu ñu mën a xool la aaya di tekki ñu war a mën a xool kawtiif ya fa nekk boroom xel yu yanji ya nga xamante ni ñoom la yàlla bëgg ñu manqué ci alquran lay njëriñ askan wi ñoom buñ ko manqué ba ñu feesal seenu loolu ñu war a mën a duy lépp lu askan bi di war a njëriñu ñu dem sottil ko askan bi fañ leen ko war a sottil ñay dem ci daara yi na ñu sottil taalibe yi la manqué ci géeju alquran bi imam yey yéeg ci minbar yi nañu sottil askan walla mbooloo ba ñu wuyu ci bésu arjuma ba tax ñu yéeg ci minbar bi ñay toog di déglu ñoomit ñu jëlee ci kileen di wax yàlla nee na yenuntu bi nee na ñu baña yem ci déglu bi rekk waaye ñu yóbbu ko di ko jëfe ci seen kémtalay kattan ba tax na yàlla ñu ne yàlla moo ñu ne ci alquran ci suratu saad mooy aaya bi rek kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albaab mbokk yi <clears throat> buur yàlla tabaraka wa daa wax yonentu bi ne sallallahu alayhi wa sallam bi ma wàccee ci yow mu di alquran da di téere bu la barke da téere bu am barke bu mat sëkk waaye ci sama coobare ci sama nemeel ci laa bëggee li yadabaru ayatihi ñu géem a xool gistu def taftiche géem a kawtif ya nekk ñu géem def recherche ci kawtif ya fa nekk nañu def investigation ci kawtif ya nekk waaye nag li yadzakkara wali yadzakkara ulul albaab boroom xel yu yanj yi nañ ci manqué yiw bi nga xamante ne dañ koy dem sottil ña nga xamante ne ñoo ko soxla yal nañu yàlla boole ci ñuy def investigation walla recherche ci aaya alquran ba ñu yàlla jox ndigal ngir ñu saytu ko waaye yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy manqué yiw ya nekk ci géeju alquran ñu di géem a góorgóorlu di ko sottil ñi nga xamante ne ñoo ko war a soxla ñañ koy sottil tamit yan na leen yàlla boole ci ñi nga xamante ne lépp lu ñu duy ci ci lañ leen di sottil ca lañu manqué ci alquran yàlla ñu mën kaa jëfe mu doon seen système de vie amin ya rabbal alamin ba tax na buur yàlla subhaanahu wa taala ma jox ndigal yonentu bi jox ndigal xeetu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu war a mën a gistu aya alquraan yi ñu war see mën a manqué la nga xamante ne mooy la leen di njëriñ ci àddina ba tax na ci téere bu mag boobu buur yàlla tabaraka wa taala ci ndoorteelu suratul muminuun bu ñu demee xool ci njëlbeenu aaya ci suratul muminuun buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di ñu baaxee ni ñu bismillahi arrahmani qad aflaha almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun walladina hum an illacwi mucriduun walladina hum lizakaati faaciluun walladina hum lifuruujihim xaafiduun illaa alaa azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum gayru maluumiin fa man ibtagaa waraa dalika fa ulaika hum alaaduun walladina hum li amaanatihim wa ahdihim raa'uun walladina hum ala salawaatihim yuxaafiduun ulaika hum alwaarisuun alladina yarisuuna alfirdawsa hum fiiha xaaliduun sadaqallahul adim mbokk yi yal na jaami yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot aaya bu njëkk ba nekk ci suratul muminuun la ko tàmbalee ci njëlbeenu aaya bi keroog ngay àgg ci fukki aaya benn la buuri yàlla di joxoñ ci aaya ba nekk ci njëlbeenu saaru suratul muminuun dafa am critère ya nga xamante jullit bi daka war a lamboo mu nekk ñaari vole ñaari volet critères ya nga xamante ne jullit bi war na war a mën a doxee war nga kaa war a mën a doxe ci sa dund ci anam wi nga xamante ne nun la ko buur yalla subhaanahu wa taala ba tax na mbokk yi bu ñu demee seet aaya ba njëkk ci boppu saar suratul muminuun buur yàlla tabaraka wa taala gëñ na ci màggaayam gëñ na ci nguur ba mu yore gëñ na ne ca dëgg dëgg dëgg texe nañu ana ñan ñoo texe buur yàlla tabbal na garaatu texe garaatu màndargay texe fii ci àddina ci ay jëmm yoo xamante ne moom lañ ñu bëgg a wax si nii jalla mbokk yi buur yàlla nee na dëgg dëgg dëgg texe na ñan almuminuun way gëm yàlla ñi nga xamante ne non seulement dañoo gëm yàlla waaye dañuy doon dañu doon way gëm yàlla ñoo xamante ne daray bokkaale yàlla nekkul ci seeni mbir dañoo gëm yàlla ci wiital ko ci nguuram seen kàddu doo fa xàmmee waxu bokkaale seen doxalin doo fa ràññee doo fa xàmmee doo fa gis doxalinu bokkaale seen jëflanteeg nit ñi doo fa gis daray bokkaale doo gis seen màndarga lay wone ne ñii li ñu nekkee ni bokkaale yàlla la ñu wiital yàlla ci anam bi ni mel daray bokkaale raxut seen dara daray bokkaale yàlla nekkut ci seen lenn ñoom la yàlla wax ci boppu saar bi ne ñoo ñooy way yàlla ñi mucc moo tax bokk na seen critère way gëm yàlla ñooñu yàlla ne alladina hum ñoo xamante ne fi salaatihim julli ba ñuy julli dang ciy gis ñu doon xaashi'uun ñu takko xushu wàccee seen bopp ñu takko xushu toroxlu ñu takko xushu ñoo xamante ne yëre waruwaay nomb tànk lépp loo xamante ne xeetu xéwale àddina la du ren tere julli ñoom fu ñu déggee noddkat bi di wax hayya ala salaa kaay leen ci julli bu ñu déggee noddkat bi wax baat bi lépp lu ñu nekkee dañ koy bàyyi waaw ñoom dañu am compréhension dañu am dégg-dégg ba tax la tax yàlla ne ñii ñoo texe texe boobu buñ ko déggee ci nodd bi fa noddukat bi di waxee bi léegi hayya alal falaah leen ci texe njëlbéen ba daf ne kay leen ci julli ba leen di jokkaleeg seen borom ñaareel bi mu ne kaay leen ci texe texe ba yàlla ne way gëm yàlla yaa ngi nii ñu texe fii ci àddina ilig bés ci ñu war a mën a dund résultat texe ba maleen leen jox comme màndarga moo tax yàlla ne alladina hum ñoo ñooy ñi nga xamante ne fii salaatihim ci seeni julli la noddukat wi di wax ne hayya ala salaa kaay ci julli waaw kaay ci julli mu jàllar beku wax ne hayya alal falaah kaay ci texe yàlla ne ñuy respecté waxtu ba noddukat bi di wax ne waxtu audience ba ngeen war sëq seen borom jot na ñuy respecté waxtu wi ñay respecté waxtu wi nga xamante ne yàlla nee na ñooñu ñooy ñu am màndargay texe te buñ koy joxe xaashi'uun dañuy meloo melokaanu toroxlu nombu tànk du leen tere julli waruwaay du leen tere julli dikkuwaay du leen tere julli liggéey du leen tere julli nekk ak njaboot yu ndaw yi du leen tere julli waxtu julli fum mu leen fekk fa lañ koy defee fekk ñu ngi ànd ak set noonu lañuy ñuy déggee maana xashe on mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa bi léegi mu ngi nii di wone màndargaay ñamu ne ñooñu ñooy way gëm yàlla ñu texiñ mu ne ñu walladina hum ani laawi muridun ñooñuy ñoo xamante ne saa yu ñu rombe lépp luy folklore lépp luy xeetu caaxaan po dañ koy dumooyu kenn du leen siin fu ñuy fowe kenn du leen seen fa ñuy caaxaane kenn du leen seen fa ñuy ndagara wale ak li mel bokk na seen màndarga yi ba léegi ña yàlla ne ñooñu ñoy way gëm yàlla ñu texe ñi wallazina hum li zakatihim faa'iluun bokk na seen màndarga saa yoo xamante ne waxtu yi génne azaka digmal si na dinañu comp ci seen alal ba leen yàlla dënk ñu ne azakay yàlla ba nekk ci sama biir alal dinaa ko génne joxe ko comme na ko yàlla bëggee ñu meloo melokaan wii ñooñu la yàlla wax ne ñoo ñoo yore màndargay texe fii ci àddina ilig bés penc ñu war kaa dund ci résultat ba ñuy góobee ci màndarga ba ñu nekkee fii ci àddina ba léegi mbokk yi buur yàlla ngi nii di ñu tegtal ci màndargay way gëm yàlla ñu texe ñi mu ne ñu walladina hum li furujihim xaafidun ñooñu ñi nga xamante ne bu dee góoru yàlla lañu yàlla nee na ñooñu ñooy ñet saxoo di takk seeni du duñu musa firi seeni géño tubéy ci keneen kudut ku leen lew bu dee soxna yi la tamit kadalik ñoomit du duñu kuy firi seen lafu sir ci keneen kudul ku leen lew waaw walladina hum gaa yi nga xamante ne li furujihim seen géño tubéy ñooru tubéy baleen yàlla dénk xaafizuun dañ koy wattu dañ koy sàmm duñ ko wilipande ci biti waaye duñ ko tekki ci kanamu keneen ku dul ki leen lew yàlla ne wottu boobu ñuy wottu seeni ñooru tubéy fépp fuñ ko war a mën a jëfandikoo du doon fenn fu dul illaa ala azwaajihim lu dul seen soxna yeleen lew aw walla maa malakat jaam yu jigéen ya ñu moom ay maanuhum ñu nekk ci seeni moomeel fa innahum yàlla nee na soxna yeeg jaam yu jigéen yooyu xayru malumin déet ñu doon ñiñ leen tere waaw tere wu ñu leen leen seeni soxna yi tere wu ñu leen leen jaam yu jigéen ya ngeen moom ci seen moomeel ñooñu daal duñu sens interdi ci yéen waaye nag yàlla mu ngi nii di joxe beneen sens interdi mu ne ñu fa mani bi taxa wara a daalik soxna yàllewu ci seen jëmm yi soxna yeleen lew ak jam yi jigéen yi nga xamante ne kenn interdit wu leen ngir ngeen sëq ñoom fa man wara waraa dalik képp ku di aji topp ci ginnaaw lañ leen wax ni képp ku nar a jëflante ci leneen lu lala yàlla wax ni ah yàlla ne fa ulaayika ñooñu de humul aaduun ñooñu ñooy ñu jéggi dayo waaw yàlla ne sa soxna amuloo ci sens interdit na nga jëflanteeg moom comme noo ko bëggee jaam yu jigéen ya nekk ci seen moomeel ñoomit kadaalik seen yëf la leen jëfandikoo comme na ngeen ko bëggee waaye nag fa man ibtaxa képp ku moy wara a daalika ginnaaw li ma la wax nii nga jigi ñaar ñi dem defi leneen hmm, fa ulaayika yàlla nee na kooku de humul aaduun ñooñu ñooy ñay jéggi frontière yàlla ne ba léegi bokk na ci màndargay julit ñu texe ñi walladina hum ñooñu ñooy ñoo xamante ne bokk na ci seen màndarga yi li amaanaatihim ndénkaane ya ngi leen dénk muy wax muy liggéey muy rendez muy waxtu wa ahdihim ak lañu sëq xeetu déxalante yi ñu déxalante ak ñeneen ñi dañ koy sàmm moo tax aaya bi jeexee raawun dañ koy wattu waaw ndénkaane bañ la dénk ci bérébu liggéeykaay nang ko sàmm déxalante ba nga déxalante patron wu liggéeykat liggéeyukaay bi en tant que liggéeykat nank sàmm moo tax yàlla ne bokk na ci màndargaay ñu texe ñooñu walladina hum ñooñooy ñi nga xamante ne li amaanaatihim kóolute bañ leen jox ngir ñu saytu ko wa ahdihim ak déxalante ba ñu déxalante ka leen sàmmaloo kóolute boobu ñu teg seeni loxo raa un dañ koy sàmm dañ koy wattu duñ fi nekk di joxe ay demande explication soxna mari bu dee baat bi noonu la waaw kañ duñ fi nekk di joxe ay ngant dañ koy sàmm waaw bu dee maître école nga bu dee professeur nga bu dee ustaas la bu dee imam la ñu ne la cours bi yaa ko war a joxe teewal balaa waxtu bi di jot bu dee médecin nga ci hôpital état bi dalaa jël ngay liggéey wala fonction publique nanga nga teew ci béréb ba balaa waxtu bi di jot ndax loolu nga dëxalanteeg ña fa jël te loolu mooy kóolute ba tax ñu teg la fa yàlla ne bokk na ci màndargaay ñi texe ñi lépp lu ñu leen dénk ci ndénkaane dañ koy wattu waaye lépp lu ñu dëxalante kalan dénk tamit dañuy sàmm dig boobu bokk na ci la yàlla ne bokk na ci màndargaay ña texe ñi walladina hum ñooy gaa yi nga xamante ne ala salawatihim seen waxtu yi julli ya ñuy julli ci bés bi muy juróomi waxtu yi yu haafizuun dañ koy wattu dañ koy sàmm waxtu julli du mel ni yeneen waxtu yi match de football du leen teree julli làmb du leen teree julli xool championnat du leen teree julli coup d'envoi ba tombeeg waxtu yu julli bi ñoo xam dañuy jóg dem julli laleen raw ñu xool nañ koy dabe waaye coup d'envoi ba ñu méngaleeg waxtu yu julli léegi-léegi nga gis ay po yoo xamante ne dañ koy méngale waxtu bi nga xamante ne bilaal bi day nekk ci jàq ji di noddu ñu ne ñu ngi waaj a sigg bilaal bi day nekk ci jàkka ji di nodd ñu ne coup dem voix baa ngi nii léegi lañuy doola dool a bal bi allahu akbar ñoo xamante ne yàlla nee na bokk nañi ci màndargay ñu texe ñi mooy ñoo xamante ne walladina hum ñoo ñooy gaa ya nga xamante ne ala salawatihim seen waxtu yu julli ya julli ci bés bi waxtu juróomi yu xaafizuun dañ koy wattu dañ koy sàmm di ko bàyyi xel ndeysaan suñu village am na suñu benn wuy jur ba fa nekkoon màggat la waaye gannaaw midi bu jotee ah ba naaj bi xaw a toll ci diggi bopp nit ki ci waxtu woowu bu déggee xale yi di yuuxu ci koñi danaan ba xam dañuy nodd tellement da doon bàyyi xel waxtu yu julli tisbaar ko yàlla yërëm moo ne yàlla suñu boroom daf ñu ne walladina hum ñoo ñooy gaay yi nga xamante ne ala salawaatihim seen waxtu yu julli yañuy julli mu doon waxtu yi audience bu noobul ba jullit bi war a rencontre ak boromam yu xaafizuun dañ koy wattu dañ koy sàmm waaw yàlla ne ulaayika ñi ma la limal nii yow yonent bi ulaayika ñi ma limal nii yow miy jàng alquraan ulaayika ñi ma la limal nii yow mi nga xamante ni yaay jullit bi waaye ulaayika yow mi ñu topp ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM yow la yàlla bëgg a waxal yàlla ne ulaayika ñi ma la limal nii humul waarisuun ñii ñooy ñii donn waaw ñii donn ñii donn lan yàlla ne alladina ñooñ ñooy ñi nga xamante ne yarisuuna al ñoy ñooy donn àjjanay firdaws ba nekk fa man yàlla buur yàlla ne ñu hum fiiha xaaliduun ñoom de foofu la sax dàkk duñ fa mus a jóge duñ fa mus génn te dañuy doon ñoo xamante ne fala ñuy bil ba tax na julli boobu noonu yàlla joxoñ màndargay texe ñi ko làmboo julli boobu nga xamante ne yàlla daf ne màndargay way texe ñi bokk na ci ñay sàmm waxtu julli juróom ya ñuy julli ci bés bi yàlla nee na ñooñu ñooy ñey donn arjanay firdaws ba nekk fa man yàlla kon képp ku nga xamante ne bëgg nga bokk ci ñuy donn jannaatun firdaws jikko ya yàlla lim ci njëlbeenu bopp saaru suratul muminuun fexeel nga tànn ci bala neex boo dut boo dut mën sa jikko ak kiriteer ya nekk ci njëlbeenu saar bi la ko tàmbalee ci aaya un ba aaya onze nga la waaye jël si ñett walla nga jël si ñeent walla nga jël si benn nga dundee loolu sa dund bi ba keroog ngay tàqale kook dund bi moo gën nga jël lépp taxañ teg fee nga ne lii moom kenn du ko mën a jëfe xakañ yàlla nee na ay nit laa jox màndarga texe parce que dañoo jikko jikko bi ni mel li yàlla joxoñ ci téere bi nag mbokk yi du malaaka moo ko jikkoo du jinni moo ko jikkoo doomu aadama moo ko jikkoo ba yàlla tagg ko ci boppu saaro suuratul mu'minun kon bu fi kenn naan lii kenn mënu koo def déedéet bu kenn naan lii du nit moo koy def moo ne yàlla nit ñi lay waxal ci aaya bi de waxut ne malaaka yi ñoo ko jikkowoo déedéet waxut ne jinne yi ñoo ko jikkowoo déedéet waxut ne tamit yeneen mbindaafoon yi ñoo jikkowoo jikko bi ni mel déedéet mbindaafoon ya yàlla wax ne ñooñu ñoo jikkowoo jikko wi ñooñu ñooy mbindaafoon ba ñu naan bani aadam mooy doomu aadam doomu aadama yi la yàlla wax ne ñu jikkoo jikko wi ñooñu lay gaarantil ne ñooy donn jannaatun firdaws buñ ko donnee ba pare yàlla nee na hum fiiha xaaliduun ñoom dañooy doon ña fay sax dàkk duñ fa dee duñ fa musa génn duñ fa musa jóge aljannatul firdaws ah yonent bi wax na ci maana xadis ne bu ngeen di ñaan yàlla ca arjanna ya nekk fa moom na ngeen ko ñaan jannatun firdaws waaw moo tax boo demee xool ci fin suuratul kahf buur yàlla tabaraka wa mu duñu wax ne inna alladina aamanuu wa amilu saalihaati kaanat lahumul jannatun firdawsi nuzulan waaw ñi xamante ne dañoo gëm yàlla wéetal yàlla toftal si jëf ju yiw topp ndigalu yàlla di ko defe na ko yonent bi jàngale ña dundu dundu wi ni mel yàlla nee na ñooñu jannaatun firdaws laa leen di wàccee keroog bés pénc yàlla ñu yàlla yombalal ñu gëm yàlla gëm yàlla bu toll ni ñu bañ kaa bokkaaleeg dara ñu bañ kaa bokkaaleeg lenn ñu wéttal ko ci gëm yàlla bam ñu wërsëgal yal na ñu yàlla wërsëgal ñu toftal ci gëm yàlla woowu jikko ba ñu yàlla joxoñal ci njëlbeenu boppu saar suratul mu'minuun yal na ñu yàlla wërsëgal ngëm yàlla bañ ko gëm mu bañ a bokkaale mu bañ a bokk ci daray bokkaale ñu toftal si jëf ju baax yàlla suñu boroom mën na ko sañ na ko yenn ñu ko yàlla boole defal amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi ati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan saa'iliina mawla jalla wa ala an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umuurina allahumma ya rabbi nas'aluka mujibaati rahmatika wa ghazaaima maghfiratika